kàttanu yàlla ak yàlla bi ñu ko liggéeyee. jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen waat bu baax a baax. di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax tey nag ñoo ngi fii ci Malika seet si ki nga xamante ni mooy booy Malika su mu nee Boy Malika ne mbër la woon su mu nee Boy Malika neen daanaan la woon waaye fa yi dafa nekk ci ay jafe-jafe nekk ci ay difficulté yoo xamante ni soxla na soxla na taxaw soxla na jàppale soxla na koo xamante ni dañ koy geesuwaat ndax ci làmb la bokkoon waaye tout récemment dafa am loo xamante ni da koo jot a dal ndax euh, jotoon na am loo xamante ni jotoon na ko dal du ma ko du ci yaatal benn yoon dama koy bàyyi moom mu expliquer cas bi ak fay ni mu demee ndax ñun ci suba ba léegi ñoo ngi fii Euh, di ko xaar waaye dafa demoon fànn defi ay traitement ay rajo ah xool li nga xamante ni moo nekk ci ah, moom yàgg nañ fi lool bi muy am lu ñu jot a expliqué boobaa ak léegi sax sama yoon dafa xaw a daw ndax damaa xam ne dafa metti ci koo xamante ne xale nga nekk jeune ah wa wa wa war bari am yoo xamante ni dal na la nekk gàllankoor métti ñu bàyyi ko mu nuyoo yaatal waxtaan wi ndax nettali ci làmb ñu la dàkkee booy ma ko nuyu naa la. waaw kilifa gi fay naa la ñu ngi waxaat onze billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonante bi sant suñu ñaari waajur aussi tamit di leen nuyu encore une fois quoi di tamit di jegalu ci temps bi ngeen toog fii nii tamit di ñu xaar quoi wax dëgg yàlla parce que amoon na yeneen mission yoo xamante ni moom ngeen waroon dem doxi ngeen bàyyi loolu noonu yëpp duñu ñu xaar ñu ngeen leen di jaajëfal di leen siyaar bu baax. waaw. Euh, pour ñi nga xamante ni ñooy seetaan Wassare Lamb parce que dégg nañu cas bi ci yeneen site ci yeneen site mais ñi nga xamante ne ñooy seetaan Wassare dañoo bëgg mu leer cas bi naka la demee. waaw cas bi tamit yaakaar naa ne expliqué naa ko expliqué waat ko wax naa ko fu ne quoi mais daal su ma soñoon tamit du ma si nekk di expliqué di expliqué waat parce que wax naa si waxaat si daal wax dëgg yàlla. waaw non comme fee bi rek li nga xamante ni moo ci ëpp solo parce que am na ñoo xam te dañu xam mooy booy Malika dinañ dégg coow li mais duñu xam lan la. Euh, dégg naa ne dafa am bal boo xam te dafa nekk sa naka la demee ak lan la lay def ak lan moo la ci metti waaw dafa am bal bu nekk sama yaram déer sax yéen bi ngeen ñëwee fekkoo leen ma fi fan laa demoon quoi suma rendez-vous waaw parce que dama demoon rendez-vous demoon defi rajo tamit war defaat scanner wala xoolaat sama groupe sangem quoi. pour pour que mu mën a def sumay préparation opéré affaire yooyu noonu quoi si laa nekkoon ni booba léegi dee sax suba dama war a delluwaat fan incha allahu rabbi waaw affaire yi ku ne xam na ne ni mu demee mooy que dama weeru koor la woon dama liggéeyoon bi dama demoon liggéey ba wàcc di jëndi ndogu si la ma lool noonu arrivé si ma bi ma jënee ndogu bay ñibbisi si lañ ma agressé door ma bal si dënn quoi. ñoom da nga doon jàmmaarloog ñoom ñu dóor la bal wala dañ la romb ak dóor la bal bi. non dañ doon nekk di discuter comme ak comme des fois agresseur ni ñuy def rek ni ñuy ni ñuy def rek comme des fois da nga gis ñoo xam dañuy ñëw arrêté la di la laaj ay affaire yaa ngi dégg pour jéem la gën a mën a dugg pour xam pour am ci yow accès daal waaw dañ doon waxtaan. yaa ngi dégg ci biir ci biir wax boobu noonu ñu may posé ay question may avancé parce que dama xam ne li ñuy wax amul bopp amul genn nag si lañ dëggalee seen bopp ma nit ma dëggal sama bopp parce que góor gu nekk góor nga quoi si laa bagaar ak ñoom mu métti si ñoom ci lañ ma dóoree bal quoi wax dëgg yàlla. après bi la dóoree bal moment boobu dina dóor bal dem wala dina dóor bal bi jël nga jot yor wala. waaw bi ñu ma dóoree bal parce que ñoom dafa am ko ki ma doon xeexal dama ko dóor ba mu daanu ki nekk ku toogoon ci instructeur bi moo ma dóor bal quoi hmm. mais après nag. bi ñu ñi jotoon nañoo wàcc moto bi. waaw. mais keneen ki nga xamante ni moom laa doon dóor ba mu lii pour songaat keneen ki keneen ki ma doon dem di songaat kooku moom ma dóor bal mais keneen ki ki ma ki nga xam ne dóor naa ko ba mu moom daf maa féete ginnaaw këdd ma bi ma këddee nag si la lonki sagos bi ñu daw yëg ci scooter bi jaar veden bi dem seen yoon. kon li jotoon ñoo jot nañ koo jël. waaw jot nañ koo jël waaw. mais bi ñu bal bi euh, yaa ngi nga koy wan léegi waaye xam naa ne doo ko mën a wane ci caméra bi parce que bal bi fii la ko doo ci dënn. Euh, boobaak léegi euh, defe naa ni euh, léegi mu def ay ay ay ay ay weeri weer boobaak léegi bal nga sa yaram ngay dund ak moom nooy dundeek moom. waaw ni may dundee moom lu dul métti rek wax dëgg yàlla quoi ak di ko tenir quoi parce que affaire yi métti na métti goo xamante ni nekkul looy mën a expliquer la parce que nit ki li ngay li ngay dund di ko yëg boo ko dee wax sax gars yi duñ xam fi mu toll quoi parce que yow mi nga xamante ne yaa koy dund di xam fi mu toll. yow yaay xam métit bi man ku ma xam-xam ne tollu ma woon nii nii mais bal bi dafa ma wàccee bu baax a baax a baax baax a baax parce que feeg deux mu mu def un si man. Mm-hmm. waaw mu nekk affaire boo xam ne affaire bu métti la tey tey moom ko quoi parce que dem naa faan jël naa samay garab mooy loolu tey moom ni ma nekkee nii moom wax dëgg yàlla alhamdulilah waa yëg naa sama bopp. fii fii boo jëlee piki yi ngay ngay ngay am jàmm mais boo jëlul piki yi day nekk loo xamante ni dafay métti ci yow. waaw boo jëlul pikiir yi moom dangay ngay da ngay faible day am loo xamante ni day day day manqué si yow te tamit xëy na blessure bi la quoi mais aussi instant bii nii maa ngi def lu tout pour mu génn sama yaram quoi parce que sonal na ma trop wax dëgg yàlla. ok chaque chaque ñaata jour ngay ngay mën a dem fan pour jël pikiir yi nga xamante ne soo ko jëlee ngay mën a nekk. waa instant bii nii su suba su ma delloo dinaa toogaat trois mois pour dellu quoi. soo delloo suba di nga toogaat trois mois pour delloo. waaw parce que suba dama war a dem defi scanner quoi. waaw. mais na parce que ku xam dem fan fan moom daa am nga ba fa dem tout le temps wala boog chaque semaine di fa def yenn yenn yenn frais yi est-ce que est-ce que jàppale bi demee na noonu. non jàppale bi demeewul noonu moo tax gisoo tey sept heures lañ dem ban heure ngeen ñu fekk seize heures. Mhm. waaw kon nga xam ni fan liñ fa daj daj nañ fa coono quoi wax dëgg yàlla. parce que buñ fay dem mën naa ne dañ koy waaj di ko waajaat il faut ñu dajale waajal suñ bopp soo ko mën a dem soo gisee temps bi nii di yàgg sax ñuy toog ay 3 mois 2 mois loolu la quoi waaw médecins yi tamit dañuy comprendre waaw. mais est-ce que boobaak léegi est-ce que boobaak léegi euh, bal bi nekk sa est-ce que wóor na ci sa santé. non wóorul ci sama santé moom ñàkk a wóor ci sama santé moo tax may dem rendez-vous chaque jour moo tax médecin naan ma heure telle ñëwal rendez-vous heure telle parce que bu nekkoon loo xamante ni lu wóor la biñ ma fajee ba ma am taxawaay ni lañ may bàyyi ma dem quoi waaw ñàkk am ci affaire bi yaakaar moo tax xama ñu ñu may jaabanteloo rendez-vous quoi dëgg yàlla. Euh, pour pour pour bal bi dañ sa yaram lan lan la ciy laaj wala lan nga xamante ni nii mooy mooy li nga xamante ni moom ngay soxla pour mën a dem defi rajo bi wala pour defi opération bi pour mën a génne loolu ci sa yaram. waaw pour pour bal bi dañ suma yaram moom budget bi 6 million la ko aw dëgg yàlla te xam ne ku ne 6 million du ay caaxaan quoi. mais aussi tamit maay profité ci occasion bi di sant ñaari lutteurs yoo xamante ne nii tey su ma doon def ay lutteurs ñooñu laa koy def muy soq. ak euh, mobile 2 bu Grand Yoff wax dëgg yàlla ñooñu ci làmb lañ daan tase nii amuñu benn connaissance wax dëgg yàlla gis naa leen ñu def acte boo xamante ni acte bu noobul la acte boo xamante ne nii non laal na ma quoi wax dëgg yàlla parce que loolu noonu ñu def mën naa ni mënoon na leen cee bañ a fekk mais tey am na ñeneen ñoo xamante ni ñoo leen gënoon a féete côté boobu noonu pour ñu def ko ñoom nit liñ ci def maa ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla quoi suñ borom fay leen seen xol. ci acte bu nice bi ñu def. waaw taxawu nañ la wala seetsi nañ la wala. waaw gis naa benn interview wax dëgg yàlla ñuy taxaw di ma kaasal xama di ma laajal ndimbal ci loo xamante ni parce que soq tey boo ko doon indi sama kër xamu fi. mobile tamit la même chose amaana deretu jullit moom moo leen yëngal rek yaa ngi dégg deretu jullit moom moo leen yëngal ba tax na ñoom xam ñu ciy def seen kéemtulaay kàttan mais amoon na yeneen champion yoo xamante ni maanaam ñoo leen waroon a jiitu ci action sociale boobu noonu. Mm. mais tey ñoom ñi ngi wane ne ñoom ay champion lañ parce que champion du ay bëri ndam rek mais esprit la ko wax dëgg yàlla te wane nañ loolu. di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax nañ ñoom ay mbër lañ te seen naataangoo la te seen mbokku judut la te koo xamante ni xale la ci société bi la bokk lii képp koo xamante ni bokkuloo ci làmb képp koo képp koo xamante ni social ngay def képp koo xamante da ngay def te yàlla tax. boo ngaa mën na ñëw taxaw jàpp ci lii parce que kii xale la boo xamante nit nii jàmbaar la ndax lii amaana am na ñenn ñu doon dal booba nga leen di fàtte ndax dañ koy néewal wala boo ragal ko ba mu yóbbu leen waaye moom jàmbaar la fi nga koy gis nii euh, loo xamante ni que léegi mu def at mu dund ak moom di dem ak métit ah waaye nag de wax na nag yéen ñi nga xamante ni yéen ñu seetaan wala yéen ñi nga xamante ni ku ci dégg lii ku ci ne soo amee loo xamante ni yéen a nga ko nga nga nga nga xool noo xamante ni mbër boo jox bu nekk ne joxal ma booy Malika wala jottalil ma ko moom dina ci jot ndax lii kenn yéenewu ko kenn euh, tey ñu ñëw fekk la nga ne ma dama dama sawar keroog am na benn interview bu ma dégg maa ngi nuyu ko bu baax a baax suñu suñu suñu mag la suñu grand frère la moom bu géwél maa ngi la dégg nga naan ay su ma su ma su may jékki-jékki absenté parce que des fois damay jékki-jékki mu laal ma laal boo xam te day métti ci man lool. waaw loolu des fois daf ma daf may dal quoi des fois comme ça ni ni ma jógee fànn tey su ma toogoon benn 15 jours wala un mois su ma jaabantee si koñ bi def tuuru koñ wala ma seeti sama gars yi indil ma benn douleur boo xamante damay dal damay toog du ma mën a def dara ba keroog muy sedd ma soog a jug dem bi te xama ne loolu noonu maanaam dafa métti ci xale quoi amaana dama naan deretu xale sax moom moo ñu xaw a dimbali. déedéet xale moom moo ñu xaw a dimbali quoi mais bu ñu xawoon a dugg âge tuuti nii non kenn waxatu ko quoi wax dëgg yàlla parce que ndaw moom mën naa ne am na lu bëri loo xamante ni du ko gaaw a tëral te aussi tamit noon noonu noonu la demee quoi mais affaire yi day métti ba nga xamante ni dooy bëgg di wax di waxaat sax billaay walaay taalaay. mais opération bi nga ko def fii nga ko defee Sénégal wala da ngay génn réew. waaw ah, man daal man pour pour wax pour dire vrai quoi man naa wér rek bu ma mënoon a fajoo Kër Massar wala Malika sax man man naa wér quoi loolu moom moo ëppal important wax dëgg yàlla.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 waaw gis ngeen noonu lay demee duñ ko yaatal benn yoon di leen jaajëfal ñoom ñi ci jàpp ñëpp lu ñu yokk lu ne ko doyul ndax kii tanam mooy suñu tan euh, bu yëgee jàmm mooy suñu jàmm gannaaw bu amee métti tamit suñu métti lay nekk kon nañ ci jàpp bu baax a baax a baax a baax di leen jaajëfal di leen jox dig daje ba beneen yoon jaajëf